noonu nit la ci gën a jox cër kon ba ni xaar a fonk ci digg la ndox mi nekk bu tuuroo ndaw si lay xont dina ci jële jaf set bu neuf moo laaj bi am tont day jëw sin ci matu rek mënoon ci faatu man su ma doon baayam dëgg bu ma mujj du mel ni rangu dëgg la gaa ñun mënuñu am ceeb te gisuñu mbay mais bëgguma am doomu màgg mel ni Pawlish Mbaye bëgguma jur lu bon na avorté sax ko réccu bëgguma am doomu mel ni Amady Badiane amet cub way dafa daan yeete ne bu yuumbaa bu jon seek tey di fi xew daal laa ko gone yi di way sek def kumpataatu ne ñàkk suturaal àndandoo man bëgguma am doomu alku ni aadamoo bëgg naa mën jur lu baax te liggéey ci lay xarañ mais bëgguma am doom lu mel ni ñaaxarañ yenn doom yi tey yu ko gàcce la mën na rey di fi ba way wudul fay doom rey ci bambay dooma sax ci xol ba lu ko laal ndey da koy yëg ma jur lu mel ni dix mille problème doy na sët fii mag mu fi yaru ci muy ndaw la ko yar dal man su ma namee jur gis ta sar yàlla naa yara dal yàlla maa ngi ñaan doom ju am fayda bañ a nekk jaam bañ a mel ni Ouzin Keita bëgg naa am doom bu jigéen sama yaay lay tafi sun magina ailu mura ci diga wala ailu kun fuck magana da ailu crise bi ci bënd bi saay-saay bi ci bëgg bi dama ne mooy wax ci lekk seen bi ñu ci ennemi wàcc seen kaw ko ci lekk yi ma ko ñu ko téye wala ko lay raf benn gi ci génn ñu dem de xam nga la medu dem ya ngi dem sa la medu fokk te du neex neex sa bu neexee yaa day lem tali bomb du xent fa sax frère di ko pele ko lu bu di sant gën ka tu big ay mat melen tan di ke pelen tan dem doy baat di ka tan du wi ko

doon yéen ñu ko def fu ñu taxaw ci àdduna Kaolack li ñuy représenter dafa am loo xam ne ku xam butigu laay ci li nga xam téléphone portable tey moo ñu jaay ak yéen dafa am lu am ci àdduna bi mu naqariñu muy coow li nekk Palestine ñuy néewal doole ay jullit xam nga lu ma bëgg téléphone yi ñooñu ñu wan image yi dañu bëgg jëlee ko Kaolack mu wër le monde entier ñu xam ne loolu metti nañu DJ lamp yi laa bëgg ngeen fayal ma lépp luy takk ci kaw bu dee jullit gi fii la nekk bu dee jullit gi fii la nekk lépp luy takk ci kaw lumière zéro ñu jël ko Kaolack nangaan parce que film bi fi lañ ko war a jëlee caméra baa ngi nii ñu wan le monde entier que ni ñun fii mooy dëkku Maulana Cheikh Ibrahim Niass Baye fii mooy dëkku Baye Basirou fii mooy dëkku Kaneen fii mooy Kaolack nangaan. waay xam ngeen lu ma bëgg a dégg téléphone yi du wàcc. allahu akbar gi laa bëgg a dégg mu wër la moo na entier jugee biir Kaolack nangaan. est que pare ngeen est pare ngeen. est pare ngeen. Samu bring the shit téléphone yi du wàcc ci yéen laa bëgg ngeen may jox allahu akbar Samu bring the shit baal mu xool. jiw. yeewu sóob. na leer ci kaw ñu gis. na leer ci kaw ñu gis. jiw. Free Palestine, free Palestine. Allahu Akbar. Free Palestine, free Palestine. Allahu Akbar. Free Palestine, free Palestine. Allahu Akbar. Free Palestine, free Palestine. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Kaolack nangaan jërëjëf Allahu Akbar. Bring that shit, Minam Sabo. Bring that shit. Amuñu temps. Ana doorkatu waar yi. Ana doorkatu waar yi. This is a real shit. Yes. Yes, ñooy. Zik Buzz Music. suñu live mbaa di cool lépp dëgër rek ni tool. suñu gang yi yëpp ndawul fii amul Jean Paul ñu ngi jox lépp mool ba ñuy sax gàddu mool amuñu di sax ci kool te bëgguñu sàcc dem ci tool amuñu mu metti lool ñu nangu ndogal fàtte ndool kenn gënuñu robat xool fii ñooy copp ci benn bool. Oh, oh, oh, teg teg ku amul liquide du teg chèque fi ku fi yarul ma échec fi ku fi yarul di jaay prek du jug ci jeel bi lay frek système sif bi lay teg bandi bandi lu échec ba les teg suñu kaw la ndoor gi taaw ku njëkk a yuuxu mooy sa daaw bul siif alalu kenn di daaw sa ci mooy jaxaan gi saaw miti na mee ñoo ngi kuul suñu xëyee maçon di muul Sénégal mu neexatul ci politiciens ñoo ñu duul baisse pas les pans. ne t'en vous pas oh l'envie est belle. La, la la la la, la la la la, oh est belle. Même si la vie est dure, même si ton bleu ne marche pas, la réussite se trouve devant. Alors baisse pas les bras, n'arrête jamais mon frère, fonce. Reste debout, serre la ceinture, rouler, rouler, ce les Pulling me up in you, you, you, you, you, you, you, you, you, you, this volleyball. Fii am na ay Baay Faal. fii am na ay Baay Faal. Rachid ku taxaw baalu ma la ko lépp ci Ahmadou Bamba Xaadimu Rasuul. Europa. te cib rek mu booy ñu battal delloo ci Tuuba fi lu lëndëm dafay leer te bambal ñuy romb bu suuba bés bu nekk la cay xaw te bi le bés bokkul ak ñoom ñoo safar mu suñu yitte bés bi ba maa ko moom ajal ma ci kaw rang we ngay gaaw sëriñ Modou Moustapha mooy taw ñu màggal yoon mooy dàq ñu daaw fii fi Touba sax muy lu lu na muy wala wala wala ko wala ne ma xal dëxin la xam nga laxtu fel c'est bon bu ko des waxul man lay dinaa ko wax dara la nga tëdd fu nooy ber ne la may la koom di leen nakar ak bi tax élémentil ba naa la bom yow tubaab la ñu jëm na cong gi jëf jigéen ñu muuru xewal yëppay baw naat lii toxul moo ngi tuuru te ba te ba dawal bi na set bu dara tilim sëriñ tubaab rek ci xol moo gën a set nekk bu ñu kilim C'est Hussein Touba rek ci xol moo tax néeg bu ñu kilim Serigne Touba rek ci xol moo gën a sedd néeg bu ñu kilim. akasa. Serigne Touba rek ci xol moo gën a sedd néeg bu ñu kilim. akasa. ana taalibe Mamba Mbaye.